salaamaaleykum sëñ bi dañu ñëwoon tay fi ci kër gu mag di ñëw leen di jaar ñëk di leen ndokkeel ci wër bi nekk di wëru gàmm gi waaw ba paré nak di bëggoon comme yéen nekk fi ni ci bërëb bu sel bi ñu ñëwoon pour ngeen xamaleen te ñok bërëb parce que amna ñu bëri ño xam ne ñoo ngi gis bërëb bi mais ñu bërëb bi lu ko waral ñu ñëwoon di laaj di leen ki ngeen laayoo ñu biir ci li waral bërëb bi waaw. wa rahmatulahi taala wa barakaatu ñu ngi nuyu ñëpp di ziar ñëpp di ndokkeel mbokk jullit yi ci wëru gàmm bi ñu nekk fii ci tiwawan waaw ten bi nag ñu ngi jëlee ci taarix ne Seydi Hadji Malick Sy radiyallahu anhu mi woote guddi yonent bi moo ko gasaloon boppam gannaaw gi nag bi mu fi jógee toogoon na diir teen bi xawoon na fat mais ci ndigalu Serigne Babacar Sy Abdoul Aziz moo joxewaat ndigal ñu ballalaat teen bi mbokk yi mën ci jariñu li ci wut ndox boo seetee yéen a ngi fekk ñoo xam dañuy ñëw naan am ñu ñëw di sàkku ndox pour yóbbu ko ñoom nag ñoo xam njëriñ liñ ci am ndax bari na ñu fi ñëw di wax ni teen bi bari na lu mu leen jëriñ waaw loolu nag ñi fi ñëw di jël si ndox mi ñoo ko xam waaye ñun moom sañ ñu ko wax mais ñoom la mu leen di fajal ci seen affaire ñoom ñoo ko xam waaw. ngi gis tamit euh, da ngay gis doom ñu bari daal am nañ fi sopp sopp sopp sopp nañ bërëb ba te sopp nañ tamit ndox mi ñi ñaa ngi ñëw di jël ñi ñaa ngi ñëw di yóbbu waaw loolu daal. comme li nga wax rek affaire bi tëjoon na lu yàgg Serigne Babacar Sy Abdoul Aziz moo ko dekk la macha allah ñu bëggoon tamit ngeen xamale ñu ngeen xamale ñu lu tax sëñ Babacar Sy Abdou ci waat tey. waaw boobu dafa gis ne Tiwaawan ñu ngi soxla ndox su mel ni bisu gàmmu lu mel ni ziar général ak yeneen xew-xew yi fi am kon teen bi bu ñu ko tijjee dina jariñ ñu bari fii daara ji daara ju mag ji ñun ñoo leen di jox ndox. 24 heures sur 24 teen bi day jariñ ñëpp ñu nekk Tiwaawan ñu wër kër gu mag ñëpp dañuy ñëw di fi jariñu ci ndox li ma wax sànq nag pèlerin yi fiy ñëw di wut si ndox di ko yóbbu ñoom ñoo xam njëriñ ñu si gis te dañu wax ne nitu yàlla loolaal ci moom rek bokk ca ngërëm la xëy na ñoom loolu la ñu gis loolu la ñu xentu moo tax ñuy ñëw di wut ci ndox mi. macha allah kàddu yi rafet na trop kon xam naa ñu ngi ñaanalante ak yow. di leen ñaanal gàmmu jàmm quoi.

Euh, que ñëw nañ gàmm si jàmm euh, que yàlla nañ yàlla defal ñu fekkee que ay déwéni déwén gàmm gi nag man chaque année damay ñëw comme nii laay damay jaay si quoi waaw. teen bii nag euh, que teen bii dafa yàgg waaw que ku si naan que da ngay am jàmm quoi loolu laa si mën a wax. que du teenu kese quoi ko xamul rek xamoo quoi. waaw ah, yàgg nañ fi ñëw di naan te jàmm rek ngay am quoi Mana talib Syekh weer laa nag kenn ma bëgg Serigne Babacar Sy masha Allah yàlla suñu doon ak ak kontaan qad jafa tayful kara tëngéej laa jógee. waaw HLM. macha allah waaw fa laa macha allah waaw teen bi à chaque année bu ma ñëwee il faut ma naan si. bu may def sax dama yóbbaale bu ma demee sangu si. macha allah yàlla ci def xéewal. waaw li ci yàlla def ñun xam nañ ko. waaye ñun ñuy taalibe Cheikh di ñëw fii xam nañ macha lan moo nekk ci teen bi ñu ngi ciy naan di ji sangu macha allah di ci gis njëriñam bu ñuy naan dañuy ñaan lépp luy sunu jàngoro ak sunu jafe-jafe yaa buur bi yàlla teggil nu ko ci barke yonent bu tedd bi sallallahu alayhi wa sallam loolu la ñuy ñaan fu ñu tool toll waaw kay jërëjëf amin amin amin jërë ngeen jef jërë ngeen jëf kontaan nañ xanaa ngeen yokku ba yëkk rek waaw yal na leen yàlla yokku ba ngeen yëkk ci barke guddi yu tedd bu tedd magal bi barke yonent bu tedd bi sallallahu salaamaaleykum papa ñu ngi lay ziar ci gàmmu gi njëkk di la ndokkeel li xam moom lañ bokk dañ fi dañoo ñëwoon parce que xam nañ ni nga mel ci xadaratul malikiya xam nañ ni nga mel ci kër seen sëñ Babacar Sy radiyallahu taala anhu ñu ñëwoon di bi nga xam ne moom la xalifa bi joxe ci gàmmu loo gisee thème waaw salaamaaleykum gannaaw bu ñu leen nuyoo euh, ndokkeel leen ndokkeel ñi fi teew ñëpp di ak yàlla nañ yàlla nangul ci barke maam Seydi Aji Malick euh, moom mi xam ne moo woote gàmmu gi te wooteelu ko boppam Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ni ki tax ñu bind ñëpp moo tax mu woote ko euh, di leen gërëm seen teewaay euh, xaj na nag juñu ko sànq sax toog na ñaar at yoo xamante ni wala ñett euh, gàmm amul te loolu yëpp ñi nga ne observé nañu ko ndigalu kilifa gee tax te génnul alxuraan génnul sunna ndax feebar moo am mu joxe ndigal ñu jëfandikoo ko bi mu joxewaatee ndigal tam ñu war a gàmm ñu fi fiy daje kon nag yàlla nañ yàlla boole nangul te nag boo xoolee mu joxe temu wa xuulu li naas husnan tem boobu nag muy aaye bu mu génn ci alquran xam naa kenn kenn du ni lii tax xalifa bi wax ko waaye jamono toll na foo xamante ne nii nit ñi wax lu rafet ñenn ñi lu romb leen te nag euh, jullit euh, wax lu rafet moo gën ci moom boo demee bay wax sa mbokku jullitam nga wax la nga xam ca lu baax la ca des nga maandu ca waaw ndax dañuy wax ni bu fekkante ni si naa xam dafa wax ni bu fekkee da ngaa nar a wax nit ñi seetal sa ayib bopp kon dina la doy ba nga am loo mën a wax. waaye nag bu xalifa baxee ne ba xuulu luy naaj xusnan mooy la ngeen wax ci nit ñi lu rafet mooy nit ñi nañu waxante lu rafet lu baax ñu wax ko ñu mën koo roy euh, man mën a koo jëfandikoo. parce que boo xoolee moom mi nga xam ne xadira maliki ya tey mooy kilifa gi yàlla na ko yàlla dundal yàggal ko fi lool ba sumb jumaa ji mu sumb ñun ñëpp ñu fekk ko mu jiite ñu. ñu def ko parce que nag loolu exemple la bu mu waxee bi mu ñëwee ba tegu ci loxoom euh, waxuma waxulu li naas usnan waaye jëf ju baax la def euh, te nit ñi war nañ ko mën a roy te nag waxu lu baax daal moo gën wax safaan te fii ci kër maam Seydi ak kër yi magu yëpp xamuñu dul alxuraan sunna kenn jàngalewul lu bon kenn jàngalewul lu safaan ba liñ jàngale daal mooy wax lu baax jëf lu baax loolu daal mooy li fi nit ñi daje foog naa ne thème bi nag nit ñi tam waruñu koo def lenn xalifa bi ñu ci benn ay alxuraan ba noppi ñu ñuy wax naan xalifa bi li mu wax li mu wax li mu wax buñ paree duñ ci jëf dara nit ñi dañ koy jëf. Ah. xam-xam bu àndul jëf bëriwul njariñ xam-xam dañ koy jëfe jàng ah, plus jëfe boo fi rawee tam te doo ko jëfe doo am njariñ moom mi xam ne moo ji moo jiite xadra bi ah, ñëpp xam nañ jox ne exemple ay rakam jox nañ exemple war nañu man a roy suñu kilifa yi topp leen. waxtaan euh, di jëfandikoo li ñuy waxtaane parce que nag li ñuy wax euh, génnul alxuraan sunna boo xoolee fukki fan fukki fan bu def amul benn fan boo xamante ni ku ñu sant nga waxtaan li ko ci Mansour Abdoul Aziz ba ci Hadj Malick Sy Maodo ba ci Mansour ak Abdou Moustapha Al Amin euh, Cheikh Tidiane bu borom daara ji ñoom ñëpp kenn amul lu ñu wax ak wala ku jox ndigal nga wax te waxoo lu ñu jariñoo yóbbal daal am nañ ko ndax nag sëñ bi boo seetloo euh, mag ñëpp wax nañ ko gàmmu Tiwaawan maam laaj ma da ko defoon lu mel ni séminaire bu ñu ñëwee mu wax ak nit ñi fàttali ñu am yóbbal bu déwén loolu daal bu fekkee amoo leneen loo wax loolu laa ci doon njëkk a wax boo amee loolu laaj ne bu ñu ko xamee ñu wax la ci wala ñu wax la suñu xalaat hmm. waaw waaye nag ñu ngi lay di gërëm di leen sant parce que nag nekk ci naaj wi yor seen appareil Euh, di wër di wax pour nit ñi jariñu oh, ñu ngi leen di gërëm di sant yàlla leen fu ngeen bëgg àgg daal yàlla nañ fa àgg ci barka xadra bi maa ngi jégalu nag bu fekkente ne wax naa ci loo xamante ne am na euh, lu ci rëqe ah xanaa ñàkk xam looy wax la rek su fekkee am na lu ci jub nag ci mbaaxu suñu borom la ñu ngi leen di jasaakumul la àndaa xayran xalifa bi yàlla na fi yàgg ak rakkam ak njaboot bi jaay seen naam xam ne